dalal fii euh, di ko remercier ci taxawu bi nga xam ni taxaw nañu ko ci màggal bi vraiment parce que la délégation ministre du tourisme vraiment taxaw nañu ba ñu mën a ziar les autorités religieuses de Touba ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal ak ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi di beral nuyu monsieur le maire Diamine Sané et toute sa délégation di beral nuyu aussi les députés yi nga xam ne ñu ngi fii muy euh, l'honorable député Sanu Dione Mansour Kébé ak l'honorable député Fatou Ba ak tous les députés yi nga xam ni accueillir nañ tey nos amis et frères gambiens monsieur le maire Bensouda ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la massawu coono yow ak sa délégation ak tous les députés ngay accompagner di nuy à travers vous le peuple frère gambien dégg naa sànq lu am solo mooy ñun nee nañ benn lañu tubaab yi ñoo ñu divisé xëy na loolu nekkoon na dëgg mais depuis indépendance ak léegi mënatuñoo wax tubaab yi ñoo ñu divisé ndax ñoom def nañ guerre entre ñoom 14 18 39 45 paatante rey lu bëri ci ñoom te bi nga xamante ni gis nañ dox àdduna fi mu dañoo defar union européenne àndal ci benn espace nga gis polonais français anglais espagnol italien ñoom ñëpp ñu def seen intégration parce que xam ni loolu mooy am ñun nag depuis loolu ñu ngi jàppandu ci tubaab yi ñoo ñu divisé woon tubaab divisé wuñu bu ñuy divisé tey amatul Afrique kon tey bu ñu booloowul nañ ko seet ci ñun ci ñun kese moo tax booloo mais benn tubaab boo xam ne moo taxaw ci Sénégal du ànd ak benn tubaab taxawul ni Côte d'Ivoire du ànd ak benn benn tubaab taxul ñun ñëpp suñu continent bi ñu tas ñu nii ba nga xam ni te ñoo ëpp nit ëpp espace ëpp ressource te tekkiwuñu dara bu ñuy jël àddina ci G8 ak yooyu du ñun dañuy xool lan la ñuy sarax mais ñoom la defar seen réew yëpp mu ngi suñu continent bi boo gisee ñuy rafetlu initiative bi monsieur le mooy lii moom mooy dañoo jàpp ni à travers le bi député yi di am ak autorités yi nga xam ne nekkul les autorités centrales muy les députés les maires jàpp nañu mën na nekk le point de départ de cette intégration tant chantée et jamais réalisée mu nekk benn serpent de mer boo xam ne toujours bu ñu toogee dajaloo ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ te teewul boo bëggee dem mën nga jóge fii dugg France wër union européenne doo am benn jafe fii boo bëggoon a dem Afrique yenn dëkk vol direct sax amul dañ lay wërloo wërloo wërloo ba nga sonn pour nga dem sax am dëkk waxuma nga wàcc fanaan yaa ngi fay jënd kër rek yaa ngi circulé donc je pense que il est temps à travers seen visite bi monsieur maire ñu ci def plaidoyer ñun ñu ngi au pouvoir ñu ngi leen ñaanal yéen tamit seen i mébét mais ak ku mën a doon ngeen xam ni sunu avenir mooy ñu booloo c'est dans ce message là bëgg nañ ngeen xam ni nekkul juste discours circonstance tey dañ fee tey mais dafa war a nekk loo xam ne ñun dañ koo gëm jëmmal ko yéen tamit ngeen gëm jëmmal ko Afrique noonu kese la mën a demee parce que àddina toll na foo xam ni bii yoon bu ñu bàyyee ginnaaw ca bañ ñu bàyyoon ginnaaw bii yoon doo fi leen maa ngi leen di gërëm remercier merci. sant di njëkk a jaajëfal suma sista bi. Fatou Ba mi nga xam ne moom lay jox taraanga bi mu jël ko cëral ma ko jox ma ko ma kontaan lool lii may wone women empowerment we got each other okay <laughs> I hope ne rek I'm gonna do justice to this moment ah, di nuyu ki nga xam ne moo ñu daral fii tey ah, Cheikh Bara Ndiaye ak jabaram ah, madame Ndiaye taraanga gi rëy na yaaja bare na te kontaan nañ torop torop torop ñun dañuy faral di ñëw Sénégal waaye ñu ngi wax suñ biir ne suñ ñëw bii nii bokkul façon su nekkee ne ñu ngi fàttali ko suñ ñëw yëpp fii nii ñëw biñ ñëw nii taxaanga biñ fi am from démba biñ egsee ba tey ah macha allah di leen gërëm rek di leen ñaanal di leen santa ah, di wax ne rek ah, yal na jokkalante bii nii gën a yanja gën a yàgga comme que commencé nañ ko ci mbégteel ah, di yaakaar na rek dinañ nekk together téyewante mu méttee bu neexee parce que euh, ñi ngeen di sexal ak ñu am góor parce que xam nañ teraanga te xam nañ tam suñ nit yi démba bu boobaa bu tey ñëwee dinañ ku fan lañ commencé comme ni ko euh, euh, monsieur le maire waxee Jamil xamanteem ak mayor Bensouda fa mu commencé foog naa ne boo leen xalaatee loolu rek ngeen xam ne yéen a ngee jëflante ñu jar a jëflante ñu jar a jàppa ñu jar a xam dañ ne nag saabu du fóot boppam waaye soo xamee sa bopp tam wax ko foog naa ne aayu soo di ci am kontaan ak mbégte rek di bëgg a wax Cheikh Bara ne yaa ngi am a big fan in uh, Gambia mu nekk uh, jigéen ju mën góor jigéen ju am pas-pas te bugg a boppam ci média bi la mooy liggéey ñu ñuy ko ooyee Fatou mu am media house bu rëy biir gàmbia uh, ñuy ko wax Kër Fatou kooku nag mu nekk koo xam ne dafa bugg a Pastef ci xolam last Wednesday xamuñu woon ne sa bés bii dina ñëw planaguñ trip bi ñu ngi toog man moom ak MC si office am ñuy waxtaan yëfi Pastef sa mbir ñëw ñuy waxtaan sa mbir ñuy ku bés yi nga xam ne dañ daan toog di ko jooy di ñàkk a lekk di ñàkk naan ngir Pastef li ñuy jànkuwanteer biir Sénégal fii Wednesday rek la tey ñu ngi nii fii nii biir Sénégal sa biir kër te fekk ñu ngi doon wax sa mbir nga xam ne yàlla rek a mun soo fu mu ne nii mu ngi seetaan di kontaan even doo nekku fi sax waaye moo fi wax bi nag dugg dama bëgg leen a wax ne man nee na Frida laa tudda ma nekk ci council bi di liggéey ak Talib Bensouda may liggéey ak jigéen ñi ak xale yi man activiste laa ci lu bari li nga xam ne loolu lay def parce que moo sax suma xol bi xeex aaxa ak yelle fi doomi aadama rawatina jigéen ak ndaw ma gom ko lool bugg jigéen suma xol bi man bu jigéen feebaree ma feebar bu jigéen kontaanee ma kontaan bu jigéen jógee ma jóg parce que jigéen dañ am solo ci biir askan bi waaye may liggéeya koo xam ne nag du ma ne suma xarit la du ma ne suma àndandoon la du ma ne ku ma xam la du ne lum xam lum am la waaye ku ma gëm gëm ko nag ci pas-pasam ak man-manam ak bugg a buggaam askan bi am na yees yàllaa ko may waaye mun ngaa am emal ko sa boppa waaye koo xam ne gëm na ne su ma am am su ma amee keneen amul kon man aw ma su ma tekkee keneen tekkiwut kon man tekkiwu ma nga pare nag li nga xam li nga mun li nga man ak sa doole fu mu am séddoo ko askan bi bugg a képp a mel ni yow bugg a fépp a mel ni yow fi nga toog mu mel noonu kon kooku jar naa dooleel kooku jar naa dimbale loolu moo tax ma bugg a ko ma fonk ko fu fikiroo ma naan fa doom <laughs> loolu waral suma ànd ak moom bokkuma ak moom parti man bokkuma benn parti waaye mu won leen ne mun ngeen a bokk a gis-gis mun ngeen a bokk a jubluwaay mun ngeen a bokk jëm fi ngeen di jëm te xëy na jógeewu leen benn place mooy wane rek yëpp ci déggu nag ma bugga nag ni ko Pastef di waxee au Jomaay ak Ousmane niñ koy waxee jub jubal jubanti parce que moom it ci yoon lay dox kon bu ngeen xam ne ñun suñ bennoo ñun jógee Gàmbi ci njiitalu taalib du hasard parce que we have alignment of interest suñ jubluwaay suñ bugg a bugg a suñ jëmuwaay dafa doon benn balaa ñuy gisante kon moo taxit euh, bennoo bi mu dëgër te jëmanguñ fenn ñu yaakaar ne nag dina jub foo xam ne ñun ñëpp dinañ ne alhamdulilahi rabbil alamin te dinañ ci gis yàlla te askan bi dinañ ci gis seen boppa kon ma ne ah, Cheikh Bara ba Ndiaye ak sa jabar man dama leen bugg a dénk taalib ngeen jàppal ma ko ñaanalal ma ko aaral ma ko iir ko nag ci kàttani yàlla di gërëm Jamil mi nga xam ne moo waral lii nii parce que du ñu ne ay xarit brodas lañ parce que suñ ne mbokka du ne deret lag la mbokka ci déggu la mbokk ci jubluwaay la mbokk ci gombe na yàlla bi mbokk ci mun liggéey bi la ak pas-pas bi kon looloo waral seen diggante booleel ñaanal ma leen kon jërëjëf di gërëm jigéen yi fi nekk yëpp di leen ñaanal te di leen invité Gambie bëgg naa ngeen ñëw Gambie yéen ñëpp dégg ndeysaan na ko ñëpp tànk ñu kontaan nañ torop ah, trip nag ki ko jagal mooy suñ meeyoo mais boo xam ne suma gox la nekk mooy meeyo Taalib Ahmed Ben Souda Euh, Faggat moom moo jagal trip bi kon mooy head of delegation maa koo gërëm si xalaat bu rafet bi euh, maa ngi gërëm Serigne Bara di ko sant di ko gërëm euh, maa ngi ñaan yàlla suma parti United Democratic Party yàlla may nu ku mel ni yow parce que nguur su fi nekkee. nii bari bëri ñoo leen def effort mu toog waaye daf day am ñoo xam ne buñ leen toroxalee dugal leen kaso loolu daf dee nekkal daf daf leen si ñooñu la bokk Serigne Bara mënoon naa ñàkk bakkenam si kaso te lim jànkuwante foofu lu métti la waaye yàlla du def mu bon soo gisee yàlla jaarale ko ci jaar-jaar yooyu mu dem nekk kaso bàyyi place yu mel nii am ne confort bu nekk fii ñu dem dugal la ci kaso boo xam ne doo am benn confort lu mel ni li nga bàyyi sa kër loolu yàlla dafa am lu tam def fan yooyu nga def ci kaso demul ngelaw jullit nga taalibe nga xam naa ñaan nga fa te yàlla nangu na sa ñaan so ñu laa gërëm la sanda maa ngi ñaan yàlla tamit yàlla jox ñun United Democratic Party ku mel ni yow jërëjëf bi tamit moom ah, duñ si sori parce que Sénégal taranga rek lañ leen xam ñu ne Sénégal réewu taranga la soo lii bettuñu jërëjëf jëf si seen taranga boobu ah, ñëw si su suma naataangoo yi nekk fii mooy député yi nekk fii député Pastef te nguuru Pastef lañ am. ñun nag ñoom ñoo bokkoon benn classe balaa ñoo jël place bi balaa ñoo jël power mooy li ngeen wax ne pouvoir ñoom opposition lañ comme ñun léegi bu fekkee yàlla dimbale leen ñoom ñu am pouvoir mënoon na ñëw ne ah ñun duñu àndaatee yéen ñoo di Democratic ko góor ngeen xam naa suma wax bi nag ñeneen mën nañ koo déggee ni differently waaye fi ma jugul rek mooy góor ngeen parce que xam nañ ne soo nekkee si government nga dendoo keneen koo xam ne yéen a dendoo frontière te moom mu ngi pouvoir opposition bu jógee si réew su ñëwee sa réew yow sa député di euh, welcome ñooñu xam na ne présidence si njiit yi dañ jelos xam nga naka la ñu loolu si wolof ah dañ fiir day fiir loolu mun naa tax sax diggante mun a ratax ah mun a ñàkk ratax waaye loolu yëpp faalewul la parce que li xew mooy nit ak nit ñooy jokkoo fii fii du nguur ak nguur grassroots ñun militant lañ yéen militant ngeen ñi fi jiitu wax fii yëpp ay militant lañ coordinators lañ division coordinators ward coordinators village coordinators ñoo ñoo njëkk wax fii yooyu si grassroots te ñoo ñoo dee liggéey politique te ñun tamit grassroots lañ si politique foofu lañ ko dee liggéey su nekk du nguur ak nguur grassroots ak grassroots la xam nañ ne seen intégration bi ngeen a war dëgg dëgg dëgg dëgg yéen pan africains lu firnde loolu mooy dangaa gis ne eh, ñaari ndaw jigéen ak góor su buggee sëy buñ d'accordee rek dafa mel ni ñoom ñaar d'accord nañ li si des mooy parents yi dañ la approuve loolu rek kon fu mu nekk nii li ñoo jublu mooy intégration bi ngeen a wax si foofu la ñu aag parce que grâce bi gisante na waxkat yi wax nañ fii ne Gambia ak Sénégal benn nit la loolu dëgg la maam suma maam góor gu jur suma yaay Sénégal fii la dëkk dëkk bi ñoo Paquet ba Sénégal oriental foofu la sama maam góor bi nekk foofu la juree suma yaay suma yaay ñëw sëy Gambia am na ku ko wax fii mu ne dangaa jàllale noonu la soo ñun benn lañ kenn bi ñu mun a divide soo dañ war a góorgóorlu si loolu loolu war nañ koo góorgóorlu góor a baax a baax a baax léegi fi maa daanal suma kàddu mooy lii daanaka comme ni ma waxee municipal visite la. waaye dañ ko war a yóbbu si beneen lengu parce que fii parlementaire yi kese tamit daje nañ fii soo liñ bugg a li ñoo sas meyo ak ñaari meyo yi eh, meyo visite meyo bi ak eh, pause bi meyo Sanya li ñu laa sas mooy léegi ñun parlementaire si tamit da ngeen war a liggéey si loolu ñu dajee ñunu neen ñun suñ kokos ak seen kokos ñu dajee ñu waxtaan seen lan moo gën si Sénégal jërëjëf. kon Sénégal nga xam ne kon Sénégambia benn la ak ñun suñu responsabilité la pour génn a jegeñal nit ñi kon ka politicien lañ politicien mooy kuy waxtaan ak askan bi kon ñun ñoo war a xelal nit ñi ne jamono bi si àdduna bi intégration moo xew bu ma tasee Dame Mbodj ñaar benn at si gannaaw yaakaar naa lii lañu waxtaan fekk Pastef winanguñ sax gañanguñ ma ne ko man suma xalaat Gambie Sénégal dafa mel ni Canada ak États-Unis man Canada laa dëkkoon wante kuy jógee Canada di dem Amérique doo xam ne jàll nga booda sax ba pare kenn du la si gëtëñ ñuy def seen business ñu ngi yóbbu seen bagage ni ñuy dem vacation ñi ngay dem lakka bi benn la nit ñi benn la lu utee rek mooy governance mooy loi wante seen militaire yaa ngi waxtaan seen économie yi ñi ngi nekk benn seen nit ñaa ngi nekk benn ba pare Gambie ak Sénégal yàlla moo ñu may lii ba kon division bu am ñun ñoo ko fa def wante waru faa nekk kon kontaan naa trop suma xol sedda na comme ñun suñu xalaat mooy yéen seen xalaat maa ngi eh, nuyu député Pastef yi ak yeneen député yu fi nekk because xam naa am na ñaari député yu fi wax wante duñu waa Pastef wante wone nañ ne réew moo leen tax a jóg kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne député Pastef yi ñu ngi leen di seetaan depuis Gambia boo leen amee jafe-jafe seen parlement loo leen faa xeex coow yu fa nekkoon yépp ñu ngi ko doon seetaan moo tax tey buñ demee ba gis place bi place yépp xamee nañ leen di leen wax ne jàmbaar lañ ñu ngi leen di ñaanal loo leen door ngeen mun koo mutali Ah, di waxtaan tam ñi ngi ànd ak délégation bu takku maa ngi ànd ak ay suma député man yàgg naa di ñëw fii wante bii mooy njëlbeen ma tukki ak député soo gisee loolu Jamil Sané moo tax dama gis ne dafa bugg a Kanifing dafa bugg a Gambie ma ne bi yoon suma ñëw dama ànd ak yeneen section suñ gouvernement pour relation yu ees ñu door pour waxtaan bi gën a yaatu parce que local government mooy municipalité am na fuñ suñu liggéey mun a em am na suñu wax fu mun a em wante ñan ñoo mën a yóbbu waxtaan bi si kaw mooy ay parlement ak ay government moo tax bii yoon ñu eb this delegation su ma waxee ba pare tudduma Yacine Dieng naa jum parce que Yacine bokk na tey si ñu nga xam ne ñoo dëgëral relation PASTEF ak UDP dëgëral relation diggante Kanifing ak Parcelles yaa seen Dieng mooy kan mooy ku leen toogal Pastef Gambia parce que bu mu méttee moom moo ñu yëgal yu fi dee xew yëpp moo tax ñun ñu gën a taxaw si yëfi Pastef pour gis ne ñu tam lu tuuti lu ñu mun a contribuer def nañ ko ba senegal amee boppam wante fu ma daanelee kàddu bi mooy Sénégal munta am ah, jaama Gambia am fitna loolu munta nekk Gambia tam munta am jaama senegal am fitna loolu munta nekk. gis nañ fii suñ président bu ñu amoon tudda Yaya mi buñ bu mu eh, eh, bañee jóg si toogu bi soo gisee Gambie amaat boppam Sénégal ñoo si taxaw kon Sénégal tam bu ñoo am jafe-jafe ñun tam ñu ne foog ñu taxaw si kon lu ma wonee mooy ne ñaari dëkk yi dañu war a jàppante ba pare liggéey bi si grassroots bi la war a dooree kon ñun luñ bugg a beneen yoon bugg nañ délégation bu maag a mag jógee Sénégal jógee Pastef ñëw Gambi ñu tarangal leen ñëw Gambi ngeen waxtaan ak suñ nit ñi ba intégration bi pour gën a koo dëgëral dañu am benn député fii yu jógee Gambi déggul français déggul olof kon bugga nañ balaa ñu jógee fi ngeen may ko jabar loolu yëpp si liggéey intégration bi la bokka du ma ooturam nag balaa aawam bi mere ma du ma ooturam waaw wante ñu ngi kontaan pour ñëw fi trop di leen sant di leen gërëm di la